two imams convicted for leading Friday prayers. Magistrate S.B. Juf of Birkama Court yesterday convicted and sentenced two Birkama imams, Karamo Kamara and Gambia, eh, and Yusufa Kamara, a Bissau national resident in Birkama, to a fine of $2,000 each, in default to serve one month imprisonment. Wow, mune, bilu, so wa ñaari imam biir Brikama lañ con convict te dañ leen fine si 2000 dalasis maanaam atte bi lim dal seen kaw daal dañuy fay xaalis si 2000 dalasis benn bi kenn ki waaw bu ñu ko defut mooy ñu yóbbu leen. ñu leen yóbbu waaw. six months in imprisonment ngay def. ñaar ñaar yooyu da ngay fay wala. mbaa nga dem waaw. corona dal fàtt nañu latu nañu torop. Mm-hmm. waaw corona. téeméer na ay si sen sen seen waruwaay de moom métti na parce que mm-hmm. bëgg sa diine gom li nga gom. moo leen ko mm-hmm. bi tamit situation bi moo indi li nguur gi am taxawaay ñu taxawee tamit aar nit ñi ci euh, na si ci ci ci waaye tamit foog nit ñi understand nekku ne nguur gi dañ mën a bëgg ñu taxawee nii nekku tamit dañ jékki-jékki rek aay nit ñi dañ bàyyi julli dafa am lu ñëw te lu ñëw jàpp na ne borom mbaar bi moo ko fi indi mhm. te lii bokk na li tax ñu moytu mooy bañ a dajaloo gi te ku wax julli xam ne dajaloo julli mbooloo Euh, surtout juma euh, loolu moom mbokk na ci te imaam yi xam naa ne euh, comme ni ñu ko waxee rek xer ci diine gi ak yu mel noonu bugg a taxaw diine gi ak yoom xëy na moo leen tax ñu demee su ko defee ñu ñu ñaanal leen rek. te ñoom mm, ànd ak li nga xamante ne mooy luwaay waaw loolu day lu doy waar la ne de mais bi am na ñu nga xam ne buñ déggee sax lu leen caaj ñoom dinañ dem fayal leen ko rawatina sax ñi nga xam ne ay nit yi diine leen. parce mm. que affaire bu doy waar la foo foo foo. foo natt métti ak xaar rek àgg na fa waaye a comme ni ko Amadou waxee rek li yëngu li ko yëngale ko ëpp doole comme ni ko gars yi bu jinne bëggee daxaar rek ku yéeg a daanu